loolu. 2528 2528 maanaam ñaari junni ak juróomi téeméer ak euh, juróom juróom ñett nit ñoom ñoo loru ci na mi n'est-ce pas certainement vous rectifiez en français c'est 2528 personnes impactées loolu euh, biñ ko jotee si la ñu euh, liggéey ak commission bi ne nañu leen jox seen ndimbal waaye dañ ko organiser en commission pour mu gaaw commission bi mooy ñi nga xam ne teg nañ leen fii déjà commission de paie def ko ñeenti taabal yoo xam ne ku ci nekk jox nañ la xaalis jox la ticket yoo xam ne ko luñ jox xaalis ba pare daal di la jox tikkee nga dem jël sa ceeb loolu nag buñ ko mënee euh, Hizbut Tarqiyyah mi sëñ euh, Youssou mi nga xam ne yebaloon nañ ko ba mu nekk ak ñun li ci sëñ bi joxe yëpp mu teg sama loxo jàpp na ci ba léegi mu ngi ciy jàpp ndaxte commission bi dañ soxla ñu yendu fi ñu añ fi loolu lépp moo koy joxe lu mel nii euh, buñ koy yëkkee maanaam dañuy joxe loo xam ne ku ne dina ci gis boppam voilà du du dañuy réparer ku nekk la nga yàqule da demuñu ci logique boobu parce que di nga xam ne ñoo xam ne yàqu nañ seen lal yàq seen armoire yàq seen tele donc du nekk remboursement dafa nekk ndimbal ba nga xam ne indi nañu ko jox ko population yi loolu moo tax euh, commission bi bi ñu waxtaanee proposé ma loolu ne ma daal nañu yëkki quarante mille francs maanaam juróom-ñetti junni jox ko ku ne yëkki benn saako jëb jox ko ah man tam nangu leen ko xam ne dëgg yàlla yenn na maanaa euh, nit ñi buñ ko jotee ku nekk dina si gis dina si gis boppam ndaxte li nit yàqule lépp sax xëy na am na ñoo xam duñ ko mën a wax duñ ko mën a wax parce que euh, nawet ku dem ci quartier yi xam ne ndox bari woon na fa waaye gouvernement bi mu ciy liggéey xam nga génn na un milliard déjà pour conduite boo xam ne mooy yóbbu ndox mi Kër Ñang euh, euh, daaru daaru Rahman dèjà conduite boobu ak ni ñu ŋàccee Kër Ñang ba nga xam ne ndox mi ban ba yëpp dañ na gis ngeen liggéey boobu li mu jur daw na barka démb 34 virgule 5 millimètres waaye gis ngeen euh, Kër Ñang débordé wul maanaam ndox mi yëpp ñe pompe ya fa nekk ak pompe ñaari pompe yi ñu dolli ak tuyau bu bees bi dèjà rek gis ngeen liggéey ba mu ba muy def bu màggal gi pas comme passé na dañuy tegaat beneen conduite encore bu boobaa suul yëpp nag mu nekkat yeneen tuyau yu bees ak yeneen popp yoo xam ne ñooy gaaw génn ndox mi yóbbu ko euh, Daaru Rahman bu ndox mi gaawee dem rek comme ban bi dañ na léegi ndox mu leer mooy dem bu ndox mi gaawee dem rek yaakaar na ne Touba inondation yi dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax a baax te loolu 4 milliards la ci gouvernement bi def 1 milliard yi génn na waaye première conduite dem nañ ba man ñu réceptionné ko mu ngi liggéey fu mu nekk nii. loolu bëgg nañ xool ñi nga xam ne ñoo gën a loru ci mën na mi waa Kër Ñang ñi nga xam ne bassin bu ba débordé ñoom la jëkkalaal ñun dèjà ñooñu la ñu xalaat pour jox leen sept tonnes de riz yi mu ngi fi dèjà sept tonnes de riz yi. le fonds de solidarité nationale dèjà ñu ngi def enquête ci ci dëkk bi ci Touba fonds de solidarité nationale jox lañ seen agent yi ay tablettes ñu ngi dugg ci quartier yi di recenser. te loolu bu ñu paree recensement bi gouvernement bi dina leen jàppale ñi nga xam ne encore ñoo nekk ci mënd bi waaye liggéeyu administration noon la faw ñu am ay yoon am fu ñu ko jaarale te ñooñu seen intervention mooy gën a yaatu ndax fonds de solidarité national day joxe entre cent mille et cent mille mais ñu ngi ci déjà agent yëpp tasaaroo nañ ci biir dëkk bi yor seen ay tablette di recenser ñi nga xam ne dañoo loru ci mënd mi kon boog gouvernement bi ñëw na waaye mu ngi gën a ñëw pour jàppale population yi nga ne dem nañ ci mbër mi jàppale la nag du du indemnisation du du réparation mais jàppale mooy li moom li xalif bi def jàppale donc yaakaar naa ne euh, loolu daal laa ci mën a wax di leen gërëm bu baax di leen sant wasalaam.